alhamdulillahil karim ñu dellu santaat yàlla bu baax julli ci seydinaa Mohamed jaajëfal Serigne Bamba jaraw lakkal maam Cheikh Ibra ñaan yàlla mu yokk leeri Serigne Saliou ya taas na ci barkeem yàggal fi Serigne Sidi Serigne Mountakha Mbacké ba mu àggale liggéeyub Serigne tubaab bi te yokk leeri Serigne Sidi Muxtaar ya taas na ci barkeem. ñaan yàlla mu yokk leer Serigne Thierno Serigne Thierno Diouf Lambaye ya taas ci barkeem te yàggal fi Cheikh Abdoulaye Diouf ba mu àggale naal bi ci barke Serigne Saliou noonu lañ koy ñaanal si seex Jëmb Fall mu àggale liggéeyub Cheikh Ibra bépp wax nga dëgg de man de bëggoon naa bala ñuy laaj jaam ñi seen digganteeg sëriñ Touba jaam ñi xam ñoom seen digganteeg Serigne Touba bañ doon ay royukaay. ci seen diggante ku leen yilif ndax li nga laaj am na solo lool Sëñ Tuubaa day jaam ñi da leen ne da a jàpp ba ñu mënu dara ba ba ñu man dara dimmili leen yërëm leen yiir leen sutural leen tegginal leen ba noppi sopp leen supporter leen ubbil leen i portam ba ku ne jàll si mësta jànni kenn waaye mës sa jànnaxe it ba nit di ko yab waaye mës sa taxawit fu ñu koy xeebe waaye mës sa defit lu ko yàlla gërëmewul waaye mës sa nangu it lu yàlla bañ waaye mës ta ànd te ànd ak kenn koo xam ne nii la ngay def daa naqari yàlla li ma doon wax ne jaam bu ne war naa xam ne Sëriñ Bàmba li ko toxoon a jóg moom matal na ko ci jëmmi Mohamed ja ngir ak ñàkk a matadim ba ku matadi boo ñëwee ci moom mu mottali ci matak ak lépp lu ma mas a doon lu ne Serigne Touba jóg jëm ca yàlla rek la mas a jóg jublu te jàddul dëppul te àgg na ca te bam ca àggee ba tey jógu fa kon moom sunu digganteek moom bu nu yeewoo tuuti dañuy xool ci digganteem ak yàlla ak yónnent bi rek nu roy ci moom kuy roy nag doo roy lu lay rey da ngay roy lu lay def piir te seytaane boo ko royee mu rey la te sëñ Bàmba boo ko royee mu def la piir kon suñ diggante moom leer na nañ ndax fu mu mas a taxaw jaamu yàlla yëpp siggi nañ fa kon fu jaam taxaw sëñ Tuubaa war na faa siggi sëñ Tuubaa fu mu mas a taxaw siggal na fa lislaam kon ku woote ci lislaam war ngaa xool ci siggeeg sëriñ Tuubaa googee sigalaale ci lislaam sigalaale ci sa bopp ndax lislaam moom dootul sa ngéem lislaam dootul sa ngéem te ku ko gësam it du tax mu tàbbi dalay ñor nga ñor ko mu tàbbi te doo ko ko wax kon jaam ñi nañu xool ci sëriñ Touba ba li mu digle lépp te yàlla digle ko ndax sëriñ Touba moom diglewut lu yàlla diglewut jëlul yëf yi boppam pour bëgg ci intérêt boppam pour digal ko jaam yi pour mu neex leen pour ñu defal ko li ko neex déedéet moom daa se la neex yàlla neex yónnent bi neex Sëñ Tuubaa xam ne neex neex lislaam neex diine neex gor yi neex sutura ak teggi nakam yàlla mu xam ne loolu ku ca aw loo bëgg yàlla defal la dégg naa ci Serigne Saliou Mbacke mu ma a wax ni waaraate bi day jaru ko waaye ñaari baat dong doy na ku defal yàlla li mu bëgg mu defal la li nga bëgg waaye mënoo ne lu yàlla bëgg duma ko def te li ma bëgg yàlla dina ma ko defal déedéet yàlla melul noonu ndax wax naa ne yàlla du ko ñuy koromp ndax boo ko korompee ñu rob la te soo ko baabee mu dugal la ci bàmmeel yàlla danga koy bàyyi xel ca la mu la baloo nga ba ko ngir boo duggee ci bàmmeel luy lore bala Sëñ Tuubaa nag digganteem ak jaam ñi yàlla rek ko ko xam te bis penc la koy wax loolu moom su ma toog dinaa ko waaye si jaam ñi ñoom ñoo war a xam ne Sëñ Tuubaa lii mu def ba am lii mu am ba ñëpp topp ko tey topp woon dërëmi àdduna ba ñàkk ngërëmal yàlla te loo bari bari nag ay dërëm te amoo ngërëmal yàlla lu mu yàgg-yàgg des na la yërëm waaye loo ñàkk-ñàkk ay dërëm te am ngërëmal yàlla nit dina jël ay dërëmam jox la ko ngir sàkku ngërëmal yàlla ci yow kon bu boobaa dërëm dalay yomb te dërëm boo am dalay lew te it Sëñ digganteem ak yàlla la doxale rek bëgg jaam ñi xam loolu mu dox seen digganteeg yàlla ñoom jaam ñi wan leen ni ñuy jaamoo yàlla ni ñuy bëggee yàlla ni ñuy soppee yàlla ni ñuy toppee yàlla yàlla boo ko jaamoo ba mu mat ba mu nangul la ko mu def la buur ak ab seex soo jaamee àdduna ba mu nangul la ko mu def la jaam ak mbaam jaam nag ak jaamu yàlla bokkul ab jaam du xam luñ ko defal du xam luñ def du xam ki ko bind du xam li tax mu bind ko te du jaamu yàlla teg ci kooku jaam la moom jaamu katab yàlla nag mooy jaamu yàlla ba dëddu àdduna bàyyi lépp lu yàlla tere sax ci lépp lu yàlla digle du xool matérielu àdduna bay matadi du topp tabaxi àdduna bay mucc ci mpax du topp itam dërëm ak àdduna ba ñàkk ngërëm du topp image ak finance ba ñàkk naas kooku mooy jaamu yàlla mooy jóg ca ba ñu ko ko waxee ba noppi yërëm ñëpp yiir ñëpp wormaal ñëpp te du wor kenn te du weranteeg yónnent bi te ku ko traversé lu mu la versé foo dugg ñoo ñe ne kooku mooy jaamu kooku mooy jaamu yàlla Sëriñ Tuubaa nag da doon jaamu yàlla bu nangul yàlla ci jaamam yi ngir jaamuwaale leen yàlla ci ki ñu war a jaamu te ku ko jaamu mu fay la te yàlla ku mu fay nga am la la la gënal bi ko yàlla fayee nag itam dana jaam ni kaay leen nu bokk ko tey man ma dellu ca yàlla dellul leen fa te xaar leen fa àdduna nag na ngeen ko moytu ndax ba ma ko dëddoo la ko yàlla dëddu ndax àdduna bu neexoon yàlla dëkk fi àdduna bu doon sax yàlla dëkk fi àdduna bu doon ba bu doon bañ a war yàlla boole ko ci yónnent yi waaye àdduna du jaam bu ñuy jaamu du ko ñuy topp àdduna dañu koy tudd rek waaye mi ngi sax ci biir diggante jaam yi ak yàlla te doon jëmm ju ñuy gis àdduna matériel rek la aki weñ aki yére ak alal ak tabax aki i bâtiment ak sato ak i hôtel ak i bailleur de fonds ak i ak i milliard million ak dërëm te amagul ngërëm moo tax ku ànd ak moom te bawoo ko bu la bàyyi ñu yërëm la te àdduna fa mu lay bàyyee mooy ba nga mënatul dara te mënalatoo kenn dara ba te loo man dañ la koy manal foofu la la àddunay bàyyee àdduna du ànd ak ko dee du ànd ak ku wopp du ànd ak ku mënatul kon bi nga deewagut sëg dund ña ngi ko jox yàlla bi nga manee na nga mënal yàlla te ma nekk say bokk bi nga amee na nga embarqué wu ci yàlla ba bu ëllëgee kenn du la ne amba kon Serigne Touba digganteem ak jaam mi moo tax mu dem géej moo tax ñu boole ko nag wa moo tax mu woole koo gaynde ga moo tax mu wutal bàyyi ak njabootam ginnaaw moo tax mu bàyyi alalam ginnaaw moo tax mu won Tuubaa ginnaaw moo tax mu dëdd adduna moo tax mu ànd ak ñu koy ñu ñu mu gën fopp ñooña di ko nattu jaarale ko ci nattu bu yàlla bu ko yàlla nara a nattal te yàlla bala laa nattal nattu la kon ku yàlla nattooti na nga ko natt ci matak Mohamed ndax moo tax Mohamed a jëkk ñëpp ciy nattu teewul dafa tenir nattu ya ba yàlla élire ko ci sin tu si gën sin tuubaa digganteem ak jaam ñi waay waay jaam ñi nañu am gor ndax sin tuubaa defal nanu luñ ko dul defal te mos ta tooñ yàlla te nu ngi tooñ yàlla te nag soo àndee ku la gën mu nangoo laa nekk bul def lu mu lay bañe wala lu mu lay sibe wala lu mu lay trompé te addunaa ngi nax ñépp nag boo bëggee mucc nag da ngay ànd ak Moustapha mi nga xam ne ci muccam ci la nu muse waaye ci mosam ci la nu mucc Sëñ Tuubaa deful dara lu lu lu yàlla di xool ne may gi ma ko may ak fi ma ko teg muy doxale nii déedéet Sëñ Tuubaa lu ko yàlla mas a jox da koo développé ba ba ko yàlla gisaatee da caa bëgg kon noonu ñi ànd ak moom te bëgg ci moom dara nanu bàyyi daraay àdduna te topp dara jaay sëriñ Touba ndax léeg-léeg nit gis wax ci dara jaay sëriñ Touba ñu defal ko loo xam ne waru ko woon a am ci juddoom léeg-léeg nit wax ci barkeb sëriñ Touba ñu defal ko loo xam ne waru ko woon a am ci dundam léeg-léeg nit wax waxi sëñ Tuubaa ju ma wax yàlla wax ko yónnent bi ñu fayee la ca loo xam ne waroo ko wan a am ci sa adduna ci wërsëg woo xam ne ëpp na sa dund ëpp na say soxla kon loolu bu sëñ Tuubaa soxlaa wala li mënu soxlaal te sëñ Tuubaa lu nu lenn lu nuy lor terewuñu lenn luy sunu njariñ sëñ Tuubaa moom yàlla dafa fàttali yëfi yàlla rek ndax yàlla diglewul lu bon tere lu baax nit mooy digle lu bon di tere lu baax ndax yàlla dana li yéeg lii ku ko def te topp ci yoon wii bu ëllëgee ma dugal la àjjana lii ak lii ku ko def te bàyyi wu ko bu ëllëgee yaay dugal sa bopp sawara ndax la nga jëf moo la yóbbu te man yàlla jëfloowu ma kenn lu bon kon nit nag moom léeg-léeg Sëñ Mbàkke mii ne Abdou Ndiaye de bu subaa Cheikh Abdou Ndiaye de bu subaa bëgg naa ko jëndal oto kenn ne ci wetam ne ko jaru ko de ndax boo ko jëndalee oto yi mu cay def du neex yàlla la mu koy defee du neex yàlla kon bàyyi ko ci nii mu nekkoon Abdou Ndiaye bu juboo woon ak yàlla ba tey am na oto fekk na xañ na dogalub yàlla ba agsi wut te moom yéene na ma ko mais xelam daal di lëmbaajoo mu xam ne kon kii kat bëgg naa lu baax waaye tere na ma ko waaye mu xëy ne suba day bëgg na maa tëj ab Ndiaye mu ne bu ko bekkaay yëgee day doo ko tëj ndax dina ci wax lu rafet dina ci wax lu rafet ñoo bokk yem kon nit tere na lu baax digle na lu bon te yàlla terewut lu baax diglewut lu bon kon nit ki daa war a natt boppam ci jëfam Sëñ Tuubaa nag gàcce ngaa laa ma digganteem ak jaam ñi noonu kay noo ci des noo fi des di worante di weerante di yàqante di làqonte di jëmmal nit ci jikko joo xam ne du jikkoom ba yàqal ko lu mu waroon a am kon sang yi doom aadama yi jullit yi fu fi waay mën a ne ci àddunaam na xool digganteem ak yàlla xool digganteem ak yónnent bi xool digganteem ak lislaam xool digganteem ak lépp loo xam ne nii da koo war a jariñ mu taxaw ca loola lu koy lor mu sori ko ndax Sëriñ Tuubaa digganteem ak jaam yi yàlla rek la fa doxale ak yónnent bi ak lislaam ak diine tere lu lépp lu bon te yàlla bëgg ko Sëriñ Tuubaa bëggul kuy ànd ak moom ku koy def lépp lu baax te yàlla bëgg ko si Tuubaa ne nekkee ñëpp sax ku def lii de am lii ku moytu lii doo am lii tey mooy ku ko jënday may xamoo la nga def te ku xamut la nga def am nga defet am nga defu te doo mën a defar Sëñ tuuba amul defet amul defu te day defar te du defante kon ànd ak moom rek a nu war suñu digganteek moom ni mu leerale digganteem ak yàlla na jaam ñi fexey leerale digganteem ak moom ci noonu lii la Sëñ Tuubaa bëgg ci digganteem ak jaam ñi jaamu yàlla topp yonent bi ci faratas yàlla ak moom Muhammad soppante bëggante jàppante wóolonte wolonte dimmilente loolu la yàlla bëgg loolu la yéen bu bëgg moom la Sëñ Tuubaa bëgg